ñi fas yéene julli ci dugg ci julli timis ki julli timis nak mom wuté nak tas tisbar ak takusan, euh, ndax tisbar ak takusaan ñom ñent rak la won mais timis tay ñent rak yépp bu ci nek mom doko wax ci kaw ndank nga yo ci suuf nga koy wax timis nak mom fo la wuté timis mom ñet rak la ñaara rakk ñëk yi day am faatiha ak sar mais mom dang koy wax ci kaw ñaara rakk ñëk yi ci timis dang nga koy wax ci kaw bo amé ñaara rak nak nga tok taya jogat bo mom benn rak moom ngay moom ngay julli faatiha rek ngay jàng waaye faatiha boobu nag moom doo ko wax ci kaw moom da nga koy wax ci suuf njàngale nag moo tax ñu koy wax ci kaw balaa ngaa kàbbaar nag da ngay liqam liqam mooy nga wax allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allahu ashhadu anna muhammadan rasulullahi xaya ala alsalaati xaya ala alfalaaxi qad qaamati alsalaatu allahu akbaru allahu akbaru laa illa allah boo paree nag nga yëkkati sa ñaari loxo ba mu sa ñaari nopp nga wax allahu akbar fa ngay waxee allahu akbar nag foofu ngay duwale yéene ji ci diggante allahu bi ba ci akbar bi tax yéene ji boo ko defee avant ngay wax allahu akbar yàqu na boo ko defee après allahu akbar tamit baaxul kon da ngay yëkkati sa loxo ba mu tolloog sa ñaari nopp ndax yekiti goko sax nekul farata mais allah akbar bi ngay wax ci bopam mom moy farata ci julli léegi bo waxe allahu akbar ci digeenti allah bi ba ci akbar ji fa ngay iye yene lan ngay yene fasna yene julli jullik timis mais doone fasna naa yéene julli rek ken du xam ndax naafila la wala farata da ngay ragnel julli bañ xam ban julli la bo wacce sa loxo nag nga tari léegi nga set sar yi nga man comme alquran dafa wax faqru ma tayassara min alquran na nga jang li li jàppandi ci yow li nga man ci alquran kon par exemple boy tari nga jàng bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وبرئت صار ومغسق الله أكبر أو نانين بعدين غسقيكو وقامي تاني بن دجيت سمرم سقي بدجيت الله أكبر بدجيت بن دنيا كبار سمرم بوه بوسقينك بعدين فنغ سبلفا سبحان ربي العظيم وبحمده subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi ba mi ñetti yoon ndax bëgguñ nga gaaw julli boo jullee julli gu gaaw baaxul ndax sëgg yi ngay sëgg rek taxaw fa wax sàbbal ñetti yoon taxaw googu nga fay taxaw faratala ndax boo sëggee sigi rek baaxul ginnaaw boo sàbbalee ñetti sàbbal nag léegi ci ngay sigi boo sigi waat tamit comme la ma waxoon ci allahu akbar bi mok sëgg bi ñooy ànd dangay wax sami allahu liman hamida tegaat ci rabbana walakal hamdu ndax bëgg nañ bu fekkee yow kese yaay julli boo waxee sami allahu liman hamida ba pare nga waxaat rabbana walakal hamdu bu fekkee mbooloo la imam bi bu waxee sami allahu liman hamida ñi si ginnaaw ñoom ñooy wax rabbana walakal hamdu comme yow kenn la nag dangay wax sami allahu liman hamida ba pare wax rabbana walakal hamdu ci mboolem rakk yëpp boo su boo jàppee sa wom ba siggi rek boo waxee sami allahu liman hamida dangay a yegg waat suuf boo yegg waat suuf tamit al ah, kabbaar bi mook segi bi eh, dem ci suuf bi ñooy ànd nga wacc ci suuf dem sujjóoti wax allahu akbar toujours say loxo bëgg nañ nga teg ko ba say nopp wala mu jégué say nopp bam tolok say nopp wala mu jégué say nopp mom tamit nga waxat comme nga waxon ci sujjóot ba subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la nga sigi andak sigi bi allahu akbar Tok jël say loxo teg ko ci say ñaari pooj diggante boobu tamit balaa ngaa sujjóotiwaat bëgg nañ fa nga jàng fa ak ñaan wala boo mënul ñaan bi nga toog fa ab diir doog a dem ndax toogaay boobu tamit farata la ñaan nga bëgg nañ nga ne allahu wasturni wajaburni waxfa Waafini. wa aafini benn yoon nga doog a dem sujjóoti boo sujjóotiwaat tamit toujours allahu akbar day ànd ak dem bi nga sëg nga dem sujjootiwaat ñaareel bi nga ne allahu akbar boo sëggee foofu tamit bëgg nañ nga sàbbaalal fa yeneen ñetti sàbbal subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la ba pare nga doog a siggiwaat delluwaat ci kaw doo toog nag booy sigi da ngay jóg ensene siggi bi allahu akbar moom tamit siggi boobu mook allahu akbar ñooy ànd ba ba yegg ci kaw nga duggaat tariwaat fatiha ak sar nga jàngat bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناز الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ku بوبو nga tari ko boko ko mënulee nga wat nga set bi nga man ci rek ci alquran comme nañ ko waxe won nga tari ko bo pare mom tamit nga nga ruko nga damat ruko yi comme nañ ko defee won ruko bi andak Allah allahu akbar bi nga seug andak ruko bi wax allahu akbar mom tamit fofu ci lu ruko bobu da ngay fay sàbbalaat comme na nga sàbbale woon ci ruko moy subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi nga sëggi waat comme nañ ko defe woon wax sami allahu liman hamida tegaat ci rabbana walakal hamdu doogo yegg suuf sujooti booy sujooti tamit nga ànd ataak allahu akbar bi wax allahu akbar moom tamit nga waxaat comme na nga waxoon ci sujoot ba subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la nga sigi andak ak sigi bi wax allahu akbar jàngat allah maghfirli wasturni wajaburni warsuqni waqfani wa balang wala nga set ñaan go man rek nga dugal ko fa boko ko lay nga tok fa ab diir loo tolloog ñaan gi nga dogo sujudu ñaarel bi allahu akbar bo pare ci lolu nga dafaat ñetti sabbal subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal a'la bo pare nak comme yang ci ñaaral lak bi da ngay segi and ak kabar bi tok wax allahu akbar ko fasiyene nak duggu ci tay bi boy tay nak sa loxo càmmoñ da ngay yep baaram yëpp loxo jor bi nga bank ñetti baram yi tàllal ñaari baram yi waaw ñaari baram mom ngay talal bank ñetti sa loxo jor loxo càmmoñ mom nga talal juroomi baram yep nga taaya taaya bi nag bëgg nañ ci nga wax ataxiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi atayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu aleyna wa ala ibadillahi saalihina an la ilaha illa allah waxdu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu taaya bu njëkk bi foofu lañ bëgg mu mu yem fa boo nga jóg booy jóg tamit nag bëgg neen ci ñaareelu ràkk bi booy jog bul jógaale wax allahu akbar da ngay ba taxaw ba jub xoj nga doog a wax allahu akbar ci ngir imaam Maalik noonu lañ ko bëggee da ngay jóg jóg ba taxaw ba jub xoj ba say cër yëpp dalaat nga wax allahu akbar léegi nag commencé dugg tari moom foofu ci ci ñetteelu ràkk bi faatiha rek nga fay jàng doo fa jàng saar faatiha rek ngay jàng jàng bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani arrahiimi maliki yawmi ddiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraata almustaqima siraata alladina an'amta alayhim xayri almaghdubi alayhim wala ddaalliin nga wax amin ci mazhabu imam malik bëgguñu amin bi nga koy wax ci kaw kon timis moom ñetti rakk la bu faatiha bi yeggee nga sëgg booy sëgg tamit sëgg bi day ànd ak allahu akbar bi nga ne allahu akbar sabbalaat fa ñetti sabbal subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi nga siggi booy siggi tamit nga ànd ak siggi bi wax sami allahu liman xamida balaa ngaa dellu su jooti nga wax rabbana walakal hamdu comme yow kese la boo paree nga rot dem su jooti al ànd ak joot bi wax allahu akbar jël say loxo teg ko ba mu tolloog say ñaari nopp sabbal fa wax subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la bami ñet ñetti yoon nga siggi andak siggi bi wax allahu akbar jël sa loxo tek ko ci sa kaw poj wax jang ñaan gi allahumma ighfir li wasturni warsuqni wa'fani wa'afini nga delu dem sujoti andak sujud bi wax allahu akbar jang fa ñetti sàbbali subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la Subhana rabbil axla nga siggiwaat wat tok tay tay mujj bi nga wax allahu akbar kon timis mom ñet rak la boy tay nak da ngay talal sa loxo càmmoñ bi baram yep ngay talal loxo jor bi nga bank ñetti baram yi talal ñaari baram yi ngay wax baramu de ak sanne kay mom ngay talal ben baram bi nak mom da dañoo bëgg nga kay yëngal ci ngir imam Malik nga yëngal baram bi wala nga talal bu mu jub nga jàng taaya bi attaxiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi attayibaatu salawatu lillahi assalaamu aleyka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala abadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu comme deuxième taaya bi la beug nañ nga julli ci daf salat ibrahima jàng allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ibrahima warham muhammadin wa ala ali muhammadin kama rahimta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidun majidun moom bëgg nañ ko nga def ko ci darñel taaye bi bu fekkee mën nga ko ginnaaw boo waxee attaxiyaatu ba ci nga teg ci salaatu boobu doo ko wax asalaamaaleykum booy wax asalaamaaleykum nag asalaamaaleykum dañoo bëgg kum mu nga nga farale ko sa mbaggum ndeyjoor wax asalaamualeykum mel ni kuy gestu eh, bu fekkee yow kese la boo sëlmalee benn sëlmal bi boobu mooy farata bi baax na bu fekkee dañ laa jiite tamit mën ngaa def asalaamaaleykum sa wàllu ndeyjoor jàkkaarloog imaam ci kanam wax asalaamaaleykum sa kanam bu fekkee am na ku nekk sa wàllu ndey sa wàllu càmmoñ nga ne asalaamaaleykum sa mbaggum càmmoñ loolu nag ci njàngale ngiru imaam Malik la kon boo defee nii julli gi mat na